ay caxaan kaana bu mag baa ngi noonu wax seen suñu bu ay caxaan yu tere tere au garage kaana bu mag ko play dara jëfti dafa ci oh ya ilaha illallah ndakaaru nga gaay fair play de baali ngoy Touba Mbacké couleur timbal lain bi nga indi li nga sol nag ak sa teint ñoo nduroo yaa ngi doog indi teint bi nag jërë jëfati sa king of sa jëfati jëfati oh garage mu damm mu ngi noonu du ay caaxaan ahlan wa sahlan bienvenue au garage du ay ya caddi caddi whatsapp kaana yu mag yaa ngi lu ñuy wax sa king of bu mag a mag ba ay jàpp ñoo nga sa kër mooy kër ñoom may baag waaw du ay caaxaan kër ñoom Porsche Cayenne kaana bu mag a mag a ngi noonu du ay caaxaan caddi caddi jërë jëfati jëfati jëfati kaana bu mag Lamine jàppal ma xere xere gi noonu ay caaxaan kii la ñuy wax the king of kaana bu mag a mag du ay caxaan caaxaan axlan wa saxlan bienvenue au garage lu wow koog karaj mu damm au garage du ay caaxaan ndakaaru yegg si leen kër gu mag gaa ngi nii du ay caxaan jaratul dem New York City jaratul dem Washington DC oh. loo waay soxla boo ñëwee ci kër gii di ko fi fekk matériel yu wow koog matériel yu góore the king of the jerejeuf lu nëbboon lu ne lu xéré ngi ni oh bajan sakura wali bi la wala bajan benen bi la ndaysan kaana bu mag a mag bajaan seetaan nañ contane nañ sa jëm li nga samp dakaru yàlla señ sa lu wo kong mu ngi non kaana bu maga mag bi nak mo yegg akhlan wa sahlan mu ngi ko xéré koy toj koko jaasi rek la ragal caddi caddi jerejeuf kaana yu mag yaangi non contane nañ sen jëm ay eh, grand badiam dakaru adina bi ko wër contane nañ sa jëm li dafa manki won dakaru fi kana yu magi ñom exhibit ñom la ko don seetaani kana yu maga magi ñoro def nii xëy fajar ci raxa sen ba 19 heures lii nag yeneen bagage la kii moy à l'heure du numérique the king of the jërëjëfati kana gu mag gaangi nonu noonu ñu koy wax wali balago Seck li moy lu bax bax ba jallu bax karaj mu dem oh Parfois, xam nga. ils sont business class salon d'honneur gi nii. kaana bu mag a mag baa ay caaxaan. the king of the jërëjëf. oto fii la yem li mooy rawal bu xaar yi. Moustapha jërëjëfati. kaana bu mag a mag. caddi caddi lii xeere na. yaa non the king ah ki de wax deug neex yalla yow la nduru li min nga ko li sa yef la te man namuna tok ci ginaaw waaw vert bi sa couleur la ki ay bagage am yëpp mu ngi ga nga bayyi yor nga takay yor nga solo bi yor nga lepp yor nga jantal lu xere ngi non the king of the li sa yef la Rolls Royce la ilaha illallah